Modou Lamine Mbacké jarawaay baari saxaaya Lamine baaraay Modou Lamine Ahmadou Lamine baaraay Modou Lamine Mbacké jarawaay baari saxaaya murito baaraay Modou Lamine Ahmadou Lamine baaraay Mami Bass Mbacké jarawaay baari saxaaya Lamine baaraay Modou Lamine Ahmadou Lamine baaraay Mami Bass Mbacké jarawaay baari Laminu Baaray Modou Lamine Ahmadou Lamine Baara Serigne Baaray jiiju gu texe ji baar Serigne Basiru Baaray Baaray maamam Serigne Basiru Baaray Baaray maamam Serigne Basiru Baaray Baaray maamam samaama yi gi jugu texe gi baari samaama yi gi jugu texe gi ee ee samaama yi gi jugu texe gi baari eh, eh, laminoo baara yi moo du laamin Modou min Mbacké jaraway baay Lamine Omar ay Modou Lamine Modou Lamine jaraway baay Serigne Bara yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar abadan modun sunu waaji moom la nu yaakaar fii moom la nu moom la nu yaakaar abadan Ahmadun sunu waaji moom lanu yaakaar fi moom lanu yaakaar abadan baar sunu waaji moom lanu yaakaar fi moom lanu moom lanu yaakaar abadan moom lanu yaakaar fi moom lanu ee eh, moom lanu yaakaar abadan baar neng baara sunu waaji am naandam tey nag baara sun waa ji am na ndam yaay baara sun am na ndam gay nekk baara sun waa ji am na ndam baar ee sun am na ndam ee yéen waa jeejee sun mbër am na ndam sëriñ Basiiru baaraay maamam kokoy gaynde maamam kokoy gaynde baaraay sëriñ maamam kokoy gaynde baaraay sëriñ maamam basiiru baaraay maamam baay sëriñ bas yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar abadan baar bilaay yow la nu yaakaar fii yow la nu yaakaar abadan baar